kii yëg mooy xoolal day génn gis ay nit kontaan mais kontaan bi day ànd ak xel dal parce que bul gis si kaa si rek ni bandi la il guy gi am ak mental parce que bañ a demee xatar demee mbàppu parce que technicien lay bëreel tey warul da bàyyi dara man sama gis-gis. sant génn na taxaw ci balcon bi état physique bi gisee. waaw noonu baax na gisoo xaw na lu bëri lu rees gisoo ni mu tolloon mëngal ak léegi yaa ngi gis épaules yi gis avant bras yi gis trapèze yi gis biceps waaw sa xel day dal quoi après kii gagné yàlla rek moo ko xam mais na nga jom wane fulla wane ngor wane entraînement bu leer quoi ñu xam ne yow foo woon loolu dong moo si am solo. bis bu toll nii lu muy a a gagné. bis bu bi bis bu mag nagu magasee daanu mais xel mu mag a koy liggéey waaw te yaakaar naa staff bi am nañ ko ay ngay lu moo nekk si ginnaaw guy gi ndaanaa na koy dar. waaw tey war naa bëreel lu bëri parce que père Mor Fadam newu fi tey te tey gasal nañ ko pax boo xamante ni bu ko gañee père mi ngi fi mu ne mais day kontaan te tamit li mu si mébal dafa neex yàlla naa gañ affaire bi ba jox ko père Mor Fadam ko kooku ñun ñëpp Guédiawaye dañ koy rafetlu moo waral sama teewaay tey jii mais bu waxul woon Mor Fadam sax mën naa fi bañ a ñëw. tey lamb xeex la wala ko bëreeloo. ah da nga koy xeex la wala da nga mënoo koo daan sans xeex Reug Reug bëreekat la boo ko bëggee tooñ da nga koy duma daan ko mais su bëggul duma bu Reug Reug mënu ko daan parce que Reug Reug bërekat la te tamit guy gi Reug Reug bu la njëkk a bëree Reug Reug bu la njëkk a bëree Reug Reug bëree bu laalee fii bu baaxul day laali fële bu baaxul mu laali fële bu duggee du génn te jeexul waaw kon balaa dugg da ngay dugg parce que bëre siburu la am na fu lay àgg docteur du la faj te bis bu ma ko fa àggee dama koy buddi maa la wax li mburu lu muy bañ mbiskit mburu mbiskit du dem si soos mais mburu ñaar rek lay war a bañ poson asib leneen loo def si mburu mburu dem te guy gi mburu la lu muy bañ non Reug Reug dafa bëri qualité Reug Reug nguru la de eh boo bañee ndaanaan doo daan ndaanaan man l'islam bugguma loolu ñu duural benn mbër boo xamante ni moo lay may quatre-vingts millions ku fa guy gi xoolal Reug Reug kaa yi mu àgg mbër bëri na lu yàgg egsi wul moom mu bëree tuuti egsi parce que tournoi bee ko ko may mais que le rek dina neex dina yëngu de. waaw waaw ñuy sant yàlla wax supporters yëpp ñu bokk dal quoi bokk nday bokk baay ba xam ne jàmm gën ak caaroy ak fii benn la quoi waaw après dañ koy nettaliwaat rek mënuñu fee daan lu gars yi daanul kon nañ gën a dar rek am yar am teggin respecté seen i booy koo si gis tamit muy yàqule benn affaire faral ko ko parce que Sénégal ñun ñoo ko moom buñ ko yàq nañ defar siège yi respecté suñu bopp bañ a yàq siège bañ a def dara mais jàpp yàq siège moom bu ne policier yi laa ko lancé jàpp ràpp tëj rek léegi mu jeex parce que nit koo tëj boo ne ana Lamine ñu ne Lamine tëj nañ ko lu mu def siège keneen du ko defaat mais nañ jàpp ràpp tëj rek moo siy génne. ñu lay jaajëfal balaa Issa